ci yéen kaay yi. Tam Fall FM El Hadji Ousseynou Ndiaye dalee nag jàmm ci xibaar yéene kaay yi nga xam ne rek moom la ñu xëyandoo ñu daal di koy door ak laas yéene kaay yéene kaay gi di ñu xamale lépp loo xam ne rek jëm na ci dialogue national bii nga xam ne rek Famara Ibrahima Sagna ak ñi ma àndaloon sumb nañ ko yéene kaay gi di laas di ñu xamale jamono ji nag Famara Ibrahima Sagna nii nga xam ne daal noonu na tàmbalee dialogue bi jaarul yoon maanaam daal baaxul yéene kaay gi di ñu xamale jamono ji kay dialogue boo xam ne dañu ko tàmbali coow la tàmbalee jox coow kay moo dox seen diggante ñi nga xam ne rek ñoo yore dialogue national boobu yéene kaay gi di ñu xamale démb koy tàngoon na ak weddante goo xam ne amoon nañ seen diggante yéene kaay gi di ñu xamale bokk na ci li nga xam ne moo jur kàddu yooyu gannaaw daal bi nga xam ne rek ñoo yor daal moom la ñu doon moom daal di indi kàddu yu tontu daal xam ne loolee bu fekkee dañu koy du dëgg laa amul benn xaalis goo xam ne jot nañ ko ñun ñii nga xam ne daal ay jafe-jafe yu metti la ñuy jànkoon daal ci boo leen xoolee nga xam ne daal moom la amal amuñu génn xaalis goo xam ne maanaam daal dañu koo mën a looy yéene kaay gi duñu xamale ne maanaam daal lii nga xam ne daal amoon na ci dialogue national bi moo raw ay jigéen yoo xam ne daal coow loo nga xam ne moom la ñu nga xam ne daal coow li nga xam ne daal coow li nga xam ne maanaam daal APR di parti njiitu réew mi balaa yàgg kay boo moytul di ngeen gis ay ponkal yoo xam ne rek danañu génn bàyyi parti njiitu réew mi yéene kaay gi duñu xamale noonee la la mbir ya demee keneen koo xam ne génn na ci FNR yii ne laas yii ne kaay di ñoo xamal ne mooy maître Abdoulaye Wade moom kay jamono ji PDS génn na ko ci FNR nee moom kay dafa jàpp ne nag dafa xam ne ne maanaam daal kuréel goog yi dafa war a taxaw ci bëgg-bëgg askan wi maanaam daal taxaw ci jàmbate askan wi waaye nag jamono jamono ji ay caaxaan yii nga xam ne nag moom la ñu maanaam daal man Abdoulaye Wade yooyee man nekkuma ci Matar Sourang ma ko jiite Wade dafa déggoon nga naan ay jubóog yu ni mel fekk jamono jooje le soleil national gi di xamale maanaam daal lépp loo xam ne rek jëm ci pétrole yi nga xam ne rek moo nekkee ca Sangomar yéeni kaay gi di xamale jamono ji nag amal nañu li nga xam ne rek moo di lancement liggéey ga ki xam ne moo ko amal di maxtaar te balaa yàgg ñi ngi xaar nag ay barilu pétrole yoo xam ne rek dana fa génn fii ak atum leneen coow loo xam ne rek amoon na fi 24 heures moom kay dafay xam ne jamono ji ak tekk tekkaaral ñoo am maanaam daal ci wàllu yoon ci lépp loo xam ne nag kuréelu jàngalekat ko waral ak loo xam ne dañoo jàpp ne nag nguuru Sénégal waroon na koo def te ba léegi France daal di ñu daanee la ko surso a ci xale mag Mor Mbaye Cissé yéene kaay gi duñu xamale liggéey

Casamance lu doy ma fa xew benn xale bu jigéen boo xam ne rek dañu ko rendi xattit yéen kaay li nga xam ne ci atum nag lu toll ki juróom benn xale yu jigéen yoo xam ne nag faat nañu leen ci anam gu ñaaw mu nekk nag lu doy ba suba